bon xam nga Mamadou dama jàpp ne euh, coow li yëpp benn candidat moo ko waral ànd nañ ànduñu opposition bi kii Amidou Thiaw la tudd sànq. Mhm. je pense que kii euh, il est avec Déthié Fall mhm. mais ñoom ñu ngi wut parrainage ñu ngi dem di rencontrer seen militants yi ñu ngi waxtaan ak ñoom pour wax nan lañ leen mën a fale nous aussi de notre côté on est en train de faire la même sos mais benn problème moo am parce que dafa am candidat boo xam ne peut-être dafa am problème ak justice ñu génne ko ci liste électorale yi am na juge boo xam ne jàpp na ne li liñ ko génnee warul moom intégré na ko. Mhm. mais DGE bi ñu denk ca candee la candee la moom mënul jox nit koo xam ne nekkul ci fii si ci ci liste euh, liste yi. Mhm. parce que tey boo nekkul boo nekkul ci liste yi boo nekkul électeur mënoo mënoo nekk candidat. Mhm. il faut que nga éligible pour mën a nekk candidat je pense que moom il est dans ses droits. de ne pas lui donner de parrainage. loolu benn point la la jàpp naa ne ñoom processus bi ñu war a suivre mooy fexe nan lañ koy intégrer ci liste yi ñoom am nañ droit suivre euh, processus boobu nañ ko suivre bu ñu ko suivre nag ba yoon delloo leen ci liste yi bu ñu demee ci juge bi. ci candeela dina leen jox fiis ñu dem mais sànq dañoo dégg la euh, Aïssata Tall Sall ñu ne am na lu mu wax lu garaaw assemblée euh, kii moo ko wax honorable rab Ayib Daffé nee na même bu CEDEAO joxee dëgg tey ji Ousmane Sonko rien n'oblige l'état du Sénégal non mooy mooy li ma la wax rek xam nga mbir mi du CEDEAO mbir mi état di Sénégal la Ousmane Sonko amul problème ak CEDEAO Ousmane Sonko dafa ne kuréel gu boole pays yi dafa am Sénégal tënku ci nangu nangu ko Sénégal nangu na tënku ci CEDEAO mais du caaganug lépp lu ñuy wax rek. loo xam ne c'est pas fois y a eu, que, day nekk loo xam ne lu lu dëppoo la ak yoonu Sénégal tey bu ñu jëlee décision boo xam ne dëppoowul ak suñu yoon mais peut état du Sénégal du ko accepter <coughs> état du Sénégal dañ ko fi teg ci mbir moo xam ne pour mu garanti ñun ñëpp suñu sécurité la bu gisee loo xam ne jàpp na ne <coughs> mën na indi jafe-jafe ci réew mi mais mën na indi barrage. peut-être man mën naa bañ am information yi moo frère jàll mën na bañ am information yi mais dama jàpp ne état tëbul tëb rek ne du du bokk ci élection yi peut-être am na processus bu tax mu teg ko na ñu suivre ñoom am nañ droit réclamer ne daf ciy bokk bu ñu demee bu leen yoon mayee dëgg bu ñu ko intégré ci biir liste mais bu boobaa DG dina ko jox liste. Mhm. beneen bi ci topp yaa ngi koy wax sànq que ne euh, le ministre Amadou Ba mu ngi mu ngi def tournée mais c'est le premier ministre du Sénégal c'est normal. tey tournée économique bu ñu ko waxee du tournée politique man je peux prendre l' exemple de Ndiène Sarax yow suivre nga. Mhm. tournée bi dama fa dem parce que dañu doon teg xeer woo xam ne wu njëkk la ci yoon boo xam ne dañ ko war a bitumer loolu ça n'a rien à avec la politique tey bu fekkee ne man dama dëkk la commune de Ndiène Sarax sama engagement politique nekk ci nan laa mën a def ba askanu Ndiène Sarax lépp loo xam ne dañ koy lijjanti pour réew mi ñu gis ci seen bopp. mu amal leen njëriñ mais bu fekkee ne loolu dama koy xeex pendant douze ans ñu jël bis boo xam ne dañu leen ko jagleel pour ñëw ci tournée économique pour tegal leen xeer woowu mais mën naa manifester sama contentement wax askan wi ñu génn teeru ko ne ko ah li état di Sénégal defal ñu bëgg nañ ci mais loolu ça n'a rien à voir avec des trucs politiques jàpp naa ne loolu tournée économique la comme président ni mu koy defee ci raison yi premier ministre dafa dem Thiès dem na Louga dem na Saint-Louis jàpp naa ne aussi dina dem ci yeneen raison yi loolu du période électorale campagne électorale mais tournée économique lañ nekk di def bu ñu demee nag ba war a campagne amul kenn koo xam ne dinañ la empêcher pour nga def pour nga def sa campagne. xalifa mhm. euh, Sall dem na mais empêché ñu ko. bu fekkee non bu fekkee bu fekkee la muy def yi mhm. dafa dëppoo ak la ko yoon may kenn mënu ko empêcher. bu fekkee aussi dëppoowul ak la ko yoon may mais dañ koy empêcher parce que nekkuñu période électorale mhm. période de parrainage la ñu nekk ñoom ñi nga xam ne dañ leen di parrainer ñu ngi ci biir kër yi di parrainer est-ce que ñëw nañ leen leen arrêté leen parrainage non moom wax na ko sànq mu ngi ci euh, mu ngi ci ci communes yi mu ngi ci dëkk euh, ci village yi di parrainer kenn waxu leen pare bu leen bu leen def parenage mais bu fekkee ne da nga ñëw di def trouble à l'ordre public mais préfet ba ñu samp foofu mu représenté fa état du Sénégal am na droit ne lii ngay def trouble à l'ordre public la askan wi dañu am droit circuler dañu am droit dem liggéey dañu war a nekk ci jàmm mhm. lii ngeen di organiser tentamari ak politique bi ak di indi ay bruit ñoom soxlawuñu ko parce que dañu war a nekk seen jàmm bu boobaa dina leen empêcher mais bu fekkee dañu dëppoo ak yoon bu boobaa yoon du leen empêcher